دارو باخم تي في أنت المقيت لسي خلقت لي رقادا اسعاد إلى الجنات يا الله أنت الأسيب لسي قد اكتفيت به عن الإدعاء والآثار والكد يا الله أنت الجليل لسي ساخ جلالته إلى سوانا لدا دارين يا الله أنت الكريم الذي قد قدت لي كراما دنيا وأخرى مآت تفسير يا الله أنت رقيب الذي بعد صيانته كلي كليتي أنسي ورلوان يا الله أنت المجيب لسن قادا بخيرا إجابة منك لي لاخترت يا الله وإنك الواسع الباغي ولي أبدا تتوسئاتم بالإب يا الله أنت الأكيم الذي لي لسوى ما زاني وما أو تسوء يا الله أنت الودود الذي خاد الموادة مدم بريلا والقرب يا الله عسى المجيد لاسي بان المجادة وخدت لي منك مجدا فاخ يا الله وإنك البعيس المقيم بلا ضرر كويتني جملة الأدار يا الله أنت سيد الأسين هذا سعادته لبترائك من نساك يا الله يا خلوص البيئة كلام جملة أعمال لم تر لي مطلقا بالفضل يا الله يا قليل أبي أقل وجملة أعمال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 kor koral la ka denc ka di wut aw des ëllëg di aw des euh, wu jëm ka keneen mhm. déedéet mhm. li ñun indi wun ko fi mhm. donga yee ko fi indi dëgg la mani Fass Mbaye léegi boo noppee kon lépp nañ ko génnee joxaat ko donga yi Fass kam yi boo xoolee tey jii boppam bii boo xoolee bi jaaw bee kàttanam gii mu amoon mu ñàkk ko xam na ni fa bàyyam jëmoon la jëm ñun ñii fa lañ jëm alali àdduna nag. Mhm. boo ci liggéeyalu sëriñ bi perte nga. loolu moom sañ nañ ko wax fu ne. Mhm, mhm. ku liggéeyalu sëñ bi. perte nga. ndax benn. boo liggéeyee da nga wàcc boo liggéeyul da nga wàcc. sëñ Mourtala nag nee na wàcc wàcc ci murit mooy. dugg ci bàmmeel. ne li fekk duggoo ci bàmmeel wàcce ko. soo demee ban la ni yoxos ci biir na. loo amoon am nga ko. waaye loo amul woon du neex nga dabu ko. kon jotaayam bii dañuy ñaan. ci baaxu sëñ Tuubaa. àndal. seen kàttan di yokk fu mu toll. amiin amiin ñun loolu la ñuy loolu la ñuy sàkku. ndax kenn ku ci nekk boo gisee bi mu noppaloo ma ne jëwruñ june mm-hmm. jëwriñ ji suñ Modou faloon nañ ko bàyyi fam ne ndax xaw woon lu tax mu fal ko ndax moo ma gën a xam àdduna gën maa xam ker ci ker ci ca ker ci guddi ba ci suñ daaru mii keroog bi suñ Modou noppaloog léegi saa bu lay woo danaan la daaw nii laa toll woon tabaski ga nii la toll woon kori ga nii la waaye ren yokk na ak nangam ak nangam mu leeran loola pas-pas la mënaan na ni suñ Modou kat nañ ko bëgg woon topp ko woon ak njabootam ba bis bu set ñun la sas wi daa wàññi ko waaye yokkut waaye jamono ju ne ku ne yokk na lañ lay wax ñi ko yokk nag ñooy yokk waaye ñi ko yokkul moom fan toog duñ fa jóg yoon suñ tubaa nag noonu rek kon ñi ngi di gërëm di ñaanal di ñaanal taalibe ñi am pas-pas balen ñoo amul pas-pas Wa loolu suñ gànna mesare di wax mhm. màggal si So ak loxoy kese sab saak mhm. soo ñëwee toog bernde yi bari mhm. nga lekk bu suur naan maa te gi yow tojal màggal ga bokkoo ci gaam dig noonu rek la ñi fi def seen alal nan Wa waaye ku fi nangasant. sa alal te yéeneet na nga ka ko am téye ko te defu ko moom kooku bay woon mu tiit moom te xam ne lu mu ñàkkoon moom lu mu ñàkkagul rek daa ak waaye mën naa ñàkk masalla li nga wax sëñ daaru mi bi sëñ bàcc liggéey li mu mujj yóbbu moo mujj ci compte orange mu boo ko consulté la mu yónnee moo ci mujj ci ñi ma sëñ bi boolee la yàlla na yàlla guddal safar doon la jàmm baax a baax bari xaalis mu ab jóg waaye ab jëm waaye loolu tamit gas naa ma tàggu naa gaa yi ñëw appareil bi waaw waaw incha allah waaw baax na mën naa ne parce que dem na ci delloo ci rek taxaw waaw bismillah عبوق الذي خلقت لي رقادا بلا بن إلى الجماعة يا الله أنت الأسيب لاسي قد اكتفيت به عن الإدعاء والآسى والكد يا الله أنت الجليل لاسي ساخ جلالته إلى سوى نالدا دارين يا الله أنت الكريم لاسي قطت قدت لي كراما دنيا وأخرى ما تفسير يا الله أنت رقيب الذي بعد صيانته كلي كليتي عن سوى رلوان يا الله أنت المجيب لسن قادا بخيرا إجابة من قالي لاخترت يا الله وإنك الواسع الباغي ولي أبدا تتو سئاتم بالاب يا الله أثر أكيم لاسي لي لسوى ما زاني وما أو تسوء يا الله أنت الودود لاسي خادا موادته مدم بريلا والقرب يا الله عسى المجيد لاسي بان تو وخدت لي منك مجدا فاخ يا الله وإنك البعيس المقيم بلا ضرار كويتني جملة الأقدار يا الله أنت سيد الأسين خاد سهادته لبترائك من نساك يا الله يا خلوص البيئة قلعة وجملة جمال لم تر لي مطلقا بالفعل يا الله يا قليل أبي أقل وجملة جمال لم تر لي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدفع والجلبية الخلق يا الله في الدفع والجلبية الخلق يا الله في الخلق يا الله في المال والقلبية الخلق يا الله في المال والقلبية الخلق يا الله أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الذنب والجلبية سالخلق يا الله أنت القوي لاسي خويتني بردم في سر والجنية سالأمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنا ولا توجه جئون بالمكروه أحيا الله أنت الولي لاسي لا أبتقي بدلا bi wali kunta alhamdulillah Modou na nag moo jëm fii ba ba dal incha si wàllum tay moom si kii bi dañuy dugg si wàllum politique bi tuuti ak tolluwaay dëkk beeg yooyu noonu ñu doon laaj ba xam ndax dëkk beeg yooyu noonu ak tolluwaayam ak comme ak kilifa nga doon ak maanaam si politique nga nekk nga xam ne yàqulu la dara ak sa mbirum diine siy sensibiliser nga si nga si dimbale nit ñi si lu bëri si ndaw yi dañ seen en en instant doon wax si wàllum politique waag maanaam fi doon ni jamono de sant bi ni ni mu demee ak xale yi nga xamante ni tey maanaam dag ma dañoo daw dëgmal internet maanaam rawat na internet nga xam ne instant lañu faral di nekk tey tey tey boo doon wax si loolu noonu tey jii sëñ bi expliquer daal si waaw xam nga ñun moom ay kilifa diine leen ba pare nekk ci di ànd ak kilifa yi yi leen ko mën a tuddee muy di yëngu ci li ñuy wax mbirum politique. Eh, mbirum politique nag eh, ñun li ci dugal mooy comme ni nga ko waxee léegi mooy toll nañ ci jamono boo xam te ni yëngu-yëngu yi bari na yëngu mënul ñàkk te ñun ñu gis ne ay. ay kilifa lan mais ay ndaw lan yoo xam ne dañoo engagé wu pour sunu gox engagé wu pour sunu commune engagé wu pour sunu askan mooy fas yéene leen taxawu ci seen kanam di leen jàppale ci li nga xam ni seen àq la ak seen i yelleef tan war cee jot te yàlla dogal xëy na niñ ci war a jote jotewuñ ci tey bu nu dee tudd di tudd politique engagement boobu nekk ci ñun askan wi xam ko ci ñun moo moo tax ñu engagé wu dugg ci politique bi politique nag euh, xëy na boo dee doomu soxna euh, ñu la ciy tudd ak euh, ni ko Sénégal di faral di defee ñu ci bari mën nañ ci am beneen lecture bu bokkut ak lecture ñun bi ni ci tax a dugg ndax politique bu fekkee li ko tax a jóg moom la ko nit ki di defee kooku jaamu yàlla la ci moom ndax mooy li ma wax léegi politique mooy nit ki nga xam ne dafa engagé wu walanteeru taxaw ci kanamu askanam fas yéene doon seenu seen mbindaan laa ko mën a tuddee waaw ndax si seen i bëgg-bëgg eh. ci ngay dox kon man na ni bindanu askan mi ngay doon nit nak bu fekke da nga nek ab jam comme sa moroomu jam ba pare nga fas yow beug doon mbindaanam di dox ci ay soxlam di doxal di ko waxal di ko mm. yoy yep ngir akam ak fam mu jot ci kooku nga mën doon mom bu ko nexe mun la sama bindan nga euh, ndax politiciens yu bari xëy na ñi ngi xëccoo passu passu ta xamul ne kep kun fal rek mm. euh, yow ñi la fal ñoy sa kilifa Euh, ci seen bëgg-bëgg ci nga war a dox ñun nag engagement boobu nekk ci ñun xëy na moo tax ñu dem ba di nu dégg ci géew politique mais nin ko fas yéene defee rek mooy nin la ko waxee mooy euh, dimbali ci askan wi fexe ba lépp luy seen àq ak seen yelleef ñu jot ci kon loolu yaakaar naa waxuma la man mais képp ku yore njaboot rek loolu war na la ndax it euh, kullukum raax wa kullukum masolu an raiyatihi mooy koo ngeen gis ci ñun ab sàmm la te ëllëg yowmal xiyaam ñi boor ci sa ginnaaw yàlla dina laaj naka nga leen doon sàmme euh, bu dee fii ci sunu commune nag di commune Baba Garage euh, moom ñu ngi ci am ay taxawaay yu ràññeeku yoo xam ni li ñu ci duggal du dara lu dut bëgg commune bi gëna jëm ci kanam parce que fi lañu juddo fi lañu yaro xeyna yaroo na nañ jangi ñew nekkat ci commune bi euh, fasiyene taxaw nak ci kanam askan wi di leen jappalé ci lepp lo xamni seen jafé jafé la parce que fi bari won na ay jafé jafé lu melni suñu sunu rang-rang yi nga xamanteni ni fi nekk moy gis nga ko ni 1939 waaw 1939 ba légui voilà 1939 ba légui man na ne ba Sénégal amé indépendance ba légui Euh, commune Baba garas ak liko wër musuñu am ay tali yu ñuul euh, ba tax na ñun binu ne bërët rek loolu lañu jëk a moy di xex ci tali bi di ci wax di ci dox ba tay euh, sunu borom dogal ne ki fi nekk muy président Macky Sall jël ci engagement bo xamante wax deug yalla am nañ ci yaakar parce que engagement bi mu ci jël kenn mus ci jël muy ndax jëlé di diggante ngaay mexé Baba garas wa CSE ñi ngi fi te ku fi jaar gis ni ñi ngi def jéggoy am solo boo jëlee mbay Baba Garage jëm Kër Samba Kane ba Touba moom itam ku euh, société bi koy defar mi ngi fi banque BDA moo ko financier euh, ministre man Faye ñëw na baaba Garage def pose première pierre muy wane ni travaux yi commencé na. xëy na li ci xaw a sooxe tuuti sax mooy nawet bi dox dox ci diggante bi nga xam ni euh, bi nu commencé def déviation yi bu asamaan si tawee rek mu yàq ci lu bare bare bare loolu xëy na li xaw a yéexal liggéey bi ci la bokk. mais beneen ba ca dolliku bu nu jógee ci tali yi comme am nañ ci yaakaar fii yéen a ngi fi doon dégg mbirum Aquatech mbirum Aquatech euh, ku ne xam na ni moom it société la boo xamante ni dafay yëngu ci wàllu ndox te euh, président de la république moo ko fi indi woon ba mu ko fi indi nag lim ci jublu mooy dimbali askan wi ci nga xam ni seen jafe-jafe ndox yi parce que ñu bari seen forage yi dañ paan duñ ko mën a defar ñuy dem ba di ci xaar état tey forage ruraux yëpp bu ko état bëggee bu ci paan mu defar ko xëy na mën na métti ci moom léegi mu gis benn société boo xam te ne dafay yëngu ci wàllu ndox muy Aquatech mu waxtaan ak moom ba juboo jox ko ko ci ay conditions yo xamanteni ni pour askan wi am ndox mu doy ndox mu sel facture yu yomb branchement yu yomb ndox mu signé ko ak mom mais ñu gis ni Aquatech bi ko gis doxee muy doxal 200 300 ba 4 ans. Euh, dafa mel ni jafe-jafe yi président bëggoon safara saafara dafa gëna yok dafa gëna yok euh, lol nak biñu démé ba nga xamni ñun askan wi nga xamni ñun ño taxone président indi ko fi ñu ñu gis ni ñi am ay jafe-jafe parce que mënatuñ sax nan nan bu doy waxuma la mbay projet yi nga xamni dañ ko daan def mënatuñ ko def lol lip Aquatech xañ ñu ko ah ci lan ni nag lii nag ëpp na lu ëpp tuuru après ci la bu dee ci sunu commune bi man ci laa jóg ànd ak euh, benn kuréel bu ñuy wax ànd taxaw sunu gox nga xam ni maa ko jiite woon ñu jóg dox ci wax ci ba Aquatech googu li ëpp ci forage yi nga xam ne yoron na ko fii ñun ñu nanguwaat ko delloo ko askan wi ndax askan wi mën a mën a mën koo mën koo doxal normal loolu am nañ ci ay jéego yu am solo buñ ci jógee lu mel ni eaux et bi fi nekk nga xam ni ku ne xam ne nituk àll mënul ñàkk bañ a am euh, jëfandikoo àll bi. muy mati yi dé ak garab yi mu bëgg gor ak pour xer yi ni samp ak et cetera et cetera yoyu bi démé ba eaux bi di ci sonal askan weet ñuy tam jóg nañ taxaw and ak askan wi dox ci wax ci ba eaux bi momit fal def ci ak woyofal ba ñu bari ci askan wi légui lu daw def ñi ngi koy def té dara du leen ci fekk té lolu ñi ngi ci gëreum nak eaux bi nga xamné mo moo nekk commune babu Garage parce que lu mu ci mëna doon dañ ci waxtaan ak mom expliquer ko momit mu comprendre nu and ci ñoom jàppale nu ci yoyep dal ay xéti jafé jafe la woon yoo xam ne mi ngi woon ci gox bi mais depuis ñu engagé wu ak léegi ànd ak askan wi gis nañ yu bëree bëri bëri mi ngi woyof ba yàlla dogal nag ñu yóbbu ñu conseil départemental euh, bi ñu demee conseil départemental yàlla dogal euh, ñu dénk nu commission religieuse mooy commission bi jëm ci mbirum diine ji fii ci département Bambey euh, commission boobu nag mm, depuis ñu kii ba léegi ñu ngi ciy def sunu kem kattan parce que li ñu njëkk a xalaat bi nu ko falee rek mooy ñun kat comme diine la li ñu war a njëkk a def mooy ñu recensé yan kilifa diine ñoo nekk ci gox bi biñ ci jógee ñu ne lan moo ci toogeel mooy nan recensé yan daara moo nekk ci département bi commune bu nekk ñu jéem xam ñaata daara moo fa nekk ñaata kilifa diine moo fa nekk su ko defee ñun liggéey bi nu bëgg a def suñu diggante ak ñoom buñ xamee nombre boobu bu liggéey bi dooree rek ñun dinañ ko mën a taxawee niñ ko war a taxawee beneen ba ci dolli ko mooy biñ fi jógee ñu xalaataat ne ah comme diine ñun ci lañu féete te diine it ci la réew mi tënku ak diina bu mu mën a doon rek koo fi gis ci diine la tënku kon nag jot na te man kuréel yi ma fiy gis yëpp euh, bu ne dégg naa ko fi muxmaa nangam muxmaa nangam mais muxmaa taxaw chef religieux yi dégguma ko fi après ci laa xalaat ne kon naa taxawal benn muxmaa bu tudd MTCR muy MTCR muy muxmaa taxawu chef religieux yi loolu nag li ma ci jublu mooy gën yaatal communication bi ci sunu diggante ak kilifa diiné yi ba njitu réew mi ak ñi yoré réew mi gëna a xel kilifa diiné yi lolu lolu mo nu motiver ba tax ñu taxawal ko parce que buñu leen gëné bayyi xel gën leena jox cër gën leena a réew mi ci lay gëna a neexal lijjantee parce que saay su réew mi yëngo kilifa diiné yi ñoko mëna dalal saay suñu jaxé ci ñom lañu jëm suñu soxla ñaan ci ñom lañu jëm lepp lu xew ci réew mi kilifa diiné yi lañuy jital kon nak jotna na ñu gën leena a te boo xoolee worma bi dafay mel ne dafay gën a wàññiku dafay gën a wàññeeku te dara waralu ko lu dul euh, xëy na euh, taxawaay yéen war a taxaw suñu diggante ak ñoom moo des léegi nag moo tax kuréel bi jóg muy mouvement MTCR jóg pour taxawu loolu pour def ci communication bu yaatu ba ñi jiite réew mi gën a bàyyi xel kilifa dina d'accord incha allah rabbi incha allah incha allah d'accord waaw su ko defee kon yéen waa Darou Bakhoum TV ñoo ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal nag liggéey bii ngeen sumb yàlla defal leen ci lu kawe seen jot mu dem ba nekk télévision ñu bokk nekk fii ci ndakaaru nekk daaru baaxum di di di liggéeyal askan wi waaw ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax jërë ngeen jëf sant nan bu baax masala allah. incha